yéen a ngi teewlu seen seen réew TV. Assalamualaikum. Usman Sonko bàyyil bi ma da nga ni yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence yonent bi daawul dëkk kenn yonent bi da daan jàngale ak di xamle waaye daawul dëkk kenn da dem ba Casamance di cas di campagne boole di ma gaaruwaale ak di ma dëkku ndax li nga wax ñëpp xam nañ ne man maa ko danga ni nag li ma wax bu ma ci delluwaatee nga tëj ma kaso préparer cellule bi may dem parce que maa ngi ciy delluwaat nii lii laa wax senegal dama ni leen Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwee ba léegi dama cee am njàqare ñetti yëf moo tax ma am ci njàqare bu njëkk bi mooy way fupp ya fa nekk dañoo yëkkati drapo Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la république yéey ci yàppi dégguma Ousmane Sonko yéey ci yàppi dégguma kenn ku bokk ci nguur gi ku ci yàppi loolu mosul am senegal beneen bi ci topp mu am jigéenu tubaab bu dëkkul ci réew mi bind livre di wax ni Casamance dafa war a am indépendance dégguma Ousmane Sonko yéey ci yàppi dégguma keneen ku bokk ci nguur gi yéey ci yàppi il a man ma def émission wax ni livre bi ken war def dédicace bi Sénégal te si fixé woon na datu dédicace Sénégal ba ñëpp xam ko kenn waxu ci dara il a fallu ma dénoncer ko pour que ñu ni ñu mujj annuler dédicace ba daal amati ba daal di tere pour ñu jaay livre bi Sénégal ma ne loolu la ci man ndax livre bu mel noonu kenn mosoo xalaat bind ko ci suufu Macky Sall wala Abdoulaye Wade beneen bi ci topp mani général Kandé nga xam ni moom moo duma way fipp yi ba indiwaat jàmm ci Casamance nguur gi ñëw ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Inde affecté ko ma ne loolu njàqare la ci man mais bu fekkee nag Ousmane ko loolu tax nga ne man da nga war a tëj kaso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation générale Kandé nga xool intellectuel sénégalais liñ ci wax xam man dama ne damaa am njàqare rek waaye demal Google wala YouTube nga def affectation générale kande nga xool intellectuel maanaam boo may tëj tey di nga tëj au moins deux cent wala trois cent intellectuels sénégalais yoo xam ni la ñu wax man jàll na bu baax li ma wax mais sa sa tëkku yi dafay wan rek singali bi ma singali tey leer na naññ ni bi nga may yóbboo deux jours garde à ñi lay waxal naan du yow tey leer na naññ ni danga ma singili te li nga bëgg taxaw ci teem mooy dugal ma kasu nee nga dinaa dem nëpp dig ma tëj rëbës ba ma nëpp loolu nga wax Ousmane Sonko respecté justice senegal ngir yàlla yow premier ministre Ya tëj nit banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu banyu ñu ba ñu ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba respectel justice Sénégal justice Sénégal ay magistrat yu am yu am valeur ñoo fa nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne école bi nga génn lañ génn xam nga ëppale wu leen dara nga taxaw yow en tant que premier ministre naan yaay dama ku ko def da ngay dem prison benn yaay tëj nit ñi te loolu mooy liggéey bi nga xam ne justice Sénégal moo ko war a dox respecté justice Sénégal ngir yàlla ba pare Ousmane Sonko affaire Kandé bi bu fa amee kenn kuñ ci war a topp mooy yow ndax da ngaa wax lu garaaw garaaw garaaw da nga ni li tax ñu affecté Kandé yaa ko wax de dafa am rapport boo fi fekk boo xam ne nii lan la nga wax ni moo nekk ci rapport ba sax man sañu koo waxaat parce que li nga wax ni moo nekk ci loolu moo garaaw pour kaaraange Sénégal xam nga da nga ni man li may wax li la ci metti mooy day laal kaat li may wax man non seulement laalal kaaraange Sénégal day défendre arabe bi waaye yow li nga wax loolu moo laal kaaraange Sénégal moo tax li nga wax ni mo nekk ca rapport ba man du ma ko du ko nett mais bu fekkee ni kenn lañ war a topp ci yëf yi mooy yow parce que rapport bobu au minimum secret défense moo ko moo ko protéger yow nga ñëw la ca nekk nga ni ko tel ci penc donc euh, euh, jërëjëf. liggéey li ka daaw lu ko wettee yàq de waaw waaw waaw yàq de xam naa ko bàyyi xel yow. maay dem fekki ñi ne ci biir àll bi parce que c'est mes papas c'est mes neveux c'est mes cousins man maa leen dem fekki jàpp seen loxo génne leen. nous sommes en train de travailler à ça avec le président Diomaye La femme, ne de mais on y travaille et la réceptivité est parfaite des deux côtés Inch'Allah nous y arriverons pour que cette affaire ne soit qu'un souvenir tout douloureux soit-il mais nous ko ko mais je voudrais mettre en garde également parce qu'il y a des apprentis politiciens yu Japonais qui ci problème mu Casamance bi lañu wara défé sen politique je veux les mettre en garde am ñu taxaw né amna tel général c'est parce que dafa doon def liguey bu baax en Casamance motax ñu sanctionné ko être patata di def allusion que Ousmane Sonko puisqu'il est originaire de la Casamance il veut affaiblir l'armée pour que les gens qui sont là-bas puissent reprendre la force Boudé on a pris toutes les dispositions les questions qui relèvent de la sécurité nationale de ko foowee Nous dee en Nous fit pas en prison si qui sanctionne un général ou un militaire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

à Rufusque, à Barnier, à Kermassar, à Saint-Louis, à Mbaké, partout dans le Sénégal et même dans la diaspora. Quand les gens ont dépassé ça, beaucoup de gens il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous allons régler définitivement cette affaire, Inch'Allah. Mais écoutez, pour que j'étais de l'huile, Diaponi, politiquer nous prendrons toutes nos responsabilités pour que tu ailles pourrir, à Rebus. Parce que l'on beaucoup de politique.